salaamaaleykum mbokk internetu Dakar net point com li leen andiloon tey mooy du ci dëkk bi waxtaan ak sénégalais ak population sénégalais ci wàllu suñu réew dañoo yeew tey dégg na Macky Sall dafa jënd avion présidentiel bi jar 60 milliards te alors que gis nañ suñu dëkk nu mu demee problème mu semence yi ndaw yi liggéeyuñu bi fa jógee problème Covid bi fan yii paase ñu ngi dégg problème mu ngóor jigéen fii suñu réew noonu duñ def lu dul rek dugg. xool gars yi ak sénégalais yi population yi seen gis-gis waxtaan ak ñoom luñ ci mën a am nag après ñu andil leen ko a jee nañ dem sama cameraman xool gars yi lan mooy seen réaction ci loolu. avion bu jël lan 600 milliards. ah loolu de dégguma ko woon yéen a ma ko wax waaye loola bu amee moom jaaduwul jekkut jubut waaw ndax ñu ngi nii toog fi dëkk bi ndaw yi liggéeyuñu luyaas bi seer na dund bi seer na ah kaar yaa ngi nii Dakar dem dikk yi liggéeyuñu ñoom itam kaar boo jëlee benn kaar bala nga kaa jëlati balaa beneen di ñëwati yàlla xam. ah la muy jëndee avion du ko doolee kaar nit ñi liggéey di dem di dikk comme joxul xale yi mu am xëy ah jël leen ci Dakar dem dikk bi fax ñi nekk receveur ñi nekk chauffeur loolu gënul jënd avion ñaata nga wax sax 600 milliards ah 600 milliards Macky Sall nag day font nag maa wax loolu. Euh, man damay wax ni euh, peut-être nekkul loo xamante ni moo war a nekk lu priorité mu nekkul li nga xam mooy prioritaire mais euh, tamit boo gisee ci tamit ci relation internationale par rapport ak président yi conditions yi ñuy nekkee. par rapport ak ñi ñuy dundee euh, man mën naa wax ci beneen côté daal ni tamit euh, mérité na que mu am loolu noonu ndax bu fekkee ne dañuy président oto avion bi ñu njëkk jaay euh, am na président yu ko doon utiliser ba pare ñu ñu koo jaay kon moom bu ko yoree donc dem ba benn certain moment tamit risque la mu koy continuer di ko yor te bu te li wax ni dafa continuer di am ay panne yu bari donc li ma gën a li gën daal mooy mu am ko tamit. nekk dans des bonnes conditions nga xam dina mën a liggéeyal Sénégal bu dee mooy tax mu gën a mën a liggéeyal Sénégal aussi du wax ñu dara mais bu dee condition sociale moom jotagul wax dëgg yaa ngi gis am na jigéen jigéen yoo xam ne sax dañuy joxe seen bopp pour am iPhone quoi nga bi nu ngay dem di jëndee avion 30 60 milliards loolu du yoon. am na loo xamante ne teguñ ko fenn avion bi jox 600 loolu mënu laa génne laa 600 de. 600 milliards avion boobu mën naa waat ne mënu ko génnewaat fii xam nga la mooy génnewaat 600 milliards nga tabax ay société ah nga tabax ay société jël jeunes yi ñu liggéey loolu noonu mën na génnewaat 600 milliards mën na génnewaat mën na génnewaat 700 milliards loolu noonu mën na génnewaat 700 milliards yooyu noonu ba amaat si double. loolu kay dëgg la ci ndaw yi kay te loolu muy def noonu li ma la wax rek bu jëloon yokkoon kaar yi dem dikk yi mu yokk ko jël receveur yi. jël chauffeur yi ñuy liggéey xam nga kon ndaw yi xëy dinañ wàññeeku am ah mu jël ndaw ñi te génne Moustapha Niass pa boobu ci gouvernement bi doy na nguur kenn du ko ñidd Moustapha Niass ca ca Senghor Moustapha Niass ca ca Abdou Diouf Moustapha Niass ca Ablaye Wade Moustapha Macky Sall doy na Moustapha Niass la muy fay Moustapha Niass mun naa xool ndaw yi mu fay ko ñaari nit nañu dimbaleeg Moustapha Niass doy na nañu dimbali te jox kale yi xale yi da génne mag ñi ci gouvernement bi teg yu ndaw yi ndax am réew ay xale ko yor. waaw bu dee affaire liggéey Sénégal li ñu war a wax dëgg sénégalais mooy dëgg moo des dëgg ñu wax sénégalais dëgg dëgg dëgg moo des mooy y a des jeunes yoo xamante ne dañuy xeeb métier beneen bi topp mooy malgré que l'état deful li ko war mais société bi tamit defuñu leen war ndax boo seetloo boo gisee un jeune sénégalais bu jógee dans les village amul benn qualification amul benn connaissance dans les villes bàyyi tool yi mu am ñoo fii dans les village yaakaar état moo koy jox liggéey mu ngi nax boppam na dem bay am li mu bëgg am parce que boo seetloo les ministres yi nekk fi actuellement ñi ngi dem di accaparer suufu Sénégal yi dem di bay donc xam nañu bay mooy xam ni donc loolu milieu de travail boo xam ne jeunes war nañ ci mën a basé wu ci exemple bu gàtt rek nga jël benn jeune sénégalais boo xam baykat la am ay toolam di bay malgré que tous les outils ne sont pas réunis nga bàyyi foofu noonu say tool ñëw fii Dakar yor sa benn pañe def ci gerte gi nga waroon a bay fële nga ñëw jënd ko fii Dakar def ko ci di ko jaay te jàpp ne loolu moo lay am naa ne nga toog foofu bay mu ëpp njëriñ kër nga ñëw fii yor benn euh, panier di si jaay gerte. agression yi bëri na feek sàcc bi affaire yooyu te ku tëful wax ku waxul lu dul yoon sax dañ lay tëj si ay détails moo waral gars yi tamit di dem di def naka su dul noonu quoi pour am xaalis benn weccit mais loolu noonu su ko dëjoon tas ko nii wutal si gars liggéey wutal si gars ay mboto war a mu ubbi ay sociétés yu bëri xam loolu tamit am na sens ubbi nekk mu fekk la si yoon la mais pas ay nekk di jël ay avion cent milliards ak yooyu noonu am loolu tamit amul sens am na feneen ak feneen fu mu xaj. non benn baaxu si moom man pour man parce que tey jii góor jigéen auzu billaahi mina sheytaani rajim si tudd gu mu tudd sax xam nga day tàddal dëkk bi amul benn sens wana Serigne Touba Mbacke pour man loolu amul benn sens si dëkk bi ay affaire góor jigéen yooyu pour man day tàddal dëkk bi mais ax ñoom ñoom loolu noonu ñoom lu ñuy dund la ay président yi ñoom ñëpp yam